bisimillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare fii ci Touba daara Hizbut Tarqiyyah bu ngeen gisee nag jataay bi ci teewaayu jëwriñu daara yi Serigne atu jaañ ak lenn ci jëwriñi jublu gi mooy fas yéene kàddu yoo xamante ni Serigne Atou Diagne dina ko yëkkati mu jëm ci mboolem membre daara Hizbut Tarqiyyah yi góor ñi ak jigéen ñi ñi ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni jublu nañ ko mu jëm ci fas yéene wuy ji Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ci liggéey bu màgg bi nga xam ne woote na ko mu jëm ci université bi ci loolu dinañ jox sëñ aatu mii jëwriñu daara ji mu ubbi ginnaaw kàddu yi bu woowee membre yi ba noppi sëriñ si Diop dana ci dikk fàttali liggéey bu mel nii naka jekk bu Tarqiyyah fu ñu ko mës a wootee ci yoonu murit la dale ci bi mu sosoo bu bisub tey wéy ji na ko waaye loolu itam noonu la mos a doxee ci lislaam mag ñi àndoon ak Serigne Touba itam ci loolu rek lañ leen ràññee bu àggalee itam Serigne Amadou Sidi Samb dana jël ci turu daaray yi waaye ci turu mboolem daara yi yu isbu tarixi yi ngir kenn ku ci nekk ban taxawaay la am ak nan la fas yéene taxawee ci liggéey bu am solo boobu. jox Serigne Aline Gueye nag mu dikk ci xéewal gi nga xamante ne am nañ ko ak yéene ji nga xam ne Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké am na ko. ak liggéey bii mu sumb muy wàllu jàng ak jàngale ak xam-xam ban taxawaay la am ci lii muy def di ko defal Sëriñ Tuubaa aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim eh, ñuy sant yàlla bu baax a baax eh, di sant eh, Sëriñ Tuubaa wëlbatiku nag di ñaanal Sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér te naalam yépp sëñ Tuubaa yeggaleel ko ko bu baax a baax tey jii nag noo ngi siyaare mboolem bokki jullit yi di siyaare bokk taalibe yi di wëlbatiku nag bëgg waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal ab tool bokk ak ñoom am xëy bokk ñoom am am am ngont bokk ak ñoom am riñaan muy ab liggéey loolu mooy waa daara isbu tarxiya yi nga xam ne noo ànd ci tool boobu muy liggéeyal sëñ Tuubaa te xam la ne ndigal jib na Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké euh, ba mu fi toogee ba tey mi ngi nuy jottali ndigal loolu di wax fi mu jëm ci wàllu bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa ci wàllu xam-xam dundalaat ko ngir Euh, xam-xam bi ak yitte yi ànd ndax mu gën a yombal liggéeyal sëñ Tuubaa ci noonu euh, gën a yaatali tamit li sëñ Tuubaa indi ci àddina bi yëpp kon loolu moom ku ne dégg na ko ci woote na ko soññe na ko teg na xeer bi kon li nga xam ne moo ci des nag boo ko seetee jëf rekk la lu koy sant bu baax a baax nag ki bunt bi mënu ubbil ngir nu mën cee liggéeyal sëñ Tuubaa ndax ku la may lay woo xam ne war naa tax nga mën a def sa yitte yëpp ci liggéeyal sëñ Tuubaa te seedatoo ko dara kon ñoo ngi koy sant bu baax a baax di wax waa daara ji nag de façon officielle xam naa ne sax li may woote tàmbali nañ ko waaye nag ñu def ko tey jii euh, mu doon loo xam ne dañuy samp de façon officielle li nga xam ne mooy euh, woote bi ñu koy woote ci sunu biir loolu kon ñu ngi ci woo waa daara yi ci biir réew mi yëpp daara isbu tarxiya yi ci biir réew mi yëpp di ci woo waa daara isbu tarxiya ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew mu mu def nag ay xaaj du ma ci sori ndax euh, pyramide yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee euh, ñi may waxal danañu ko xam kon góor ñi ak jigéen ñi dimension yi nga xam ne am na ci côté góor ñi ci espace yi ak dimension yi nga xam ne am na ci côté jigéen ñi ba ci xale yi góor yi ak xale yu jigéen yi loolu yépp kon ñu ngi xam le ne ñu ngi leen di woote xam ne liggéey la boo xam ne bàyyiwuñ ci kenn fas nañ ko yéene ànd ñun ñëpp liggéey ko liggéey bu rafet jébbal ko euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha euh, tey nag ñu xam ne euh, dan koy ànd ak moom ba mu yegg ak jàmm incha allahu taala loolu mooy lépp lu ngeen fi doon dégg muy ci suñu xeeti ziyaar yi ñu def ak yooyu yëpp tënk nañ ko ci bu doon fukk sax lépp ci benn liggéey bi lay jëm kon ñu ngi euh, soññaat jëwriñu daara yi nga xam ne ñoom ñooy buntu membre yi ci région yi ak buntu membre yi ci bitim réew ñoom ñëpp ni nga xam ne mooy système d'organisation bi nga xam ne ñun moom la moom la ñu tëral euh, nos ko muy loo xam ne mën naa gaawal lépp mën naa euh, mën nañoo dimbale ci lii nga xam ne mook làmb ju sàjj ñooyam ci ci ci baatu yu saarixoona fil xayraat xëccoo aw yiw te li eh, tax ma di ko woote mooy ku nekk xam na ne liñ ci jublu rek mooy bañ a eh, seetaan kenn dañu man loolu eh, yàgg naa yàgg naa leen cee xam ndax yu saarixoona fil xayraat làmb la joo xam ne ñaar da cee daje masta taxtum ak xaqatu xeeti yi nag la li nu yà li nu baaxoo def mooy ñaar yëpp def loo man ak loo mënul ndax kin koy defal moom soo ko defalee loo mënul mu defalal la jomb soo ko defalee eh, loo man mu defalal loo mënul ginnaaw noonu la tëdd nag ñaar yaa ngoo bi nga xam nag ne xam nañ ci miin nañ ci daara ji moom duma ko wax xam ngeen ko kon liggéey baa ngi noonu eh, woote baa ngoog eh, na mel nii Eh, dañ koy boot yenn yóbbu eh, bu doon mbërit dañ koy jàggi tëral fi suuf te su ma ko waxee yaakaar naa ni kenn du ko werante ñu ngi sant yàlla bu baax a baax eh, di ñaan yàlla liñ ci bëgg lépp mu defal nu ko defal nu ci ndam may ñaan nag baat boobu nga xam ne sëñ Muntaxa dina koy faral di wax muy tawféex yàlla na nu ko daal na nu fekk ci sunu sunu sunu sunu sunu yitte ji nañu am ñëpp am ci tawféex góor ak jigéen mag ak ndaw ma koy ñaanal euh, suñu bopp di ko ñaanal taalibe yëpp di ko ñaanal jullit ñëpp ndax liggéey la boo xam ne kat euh, ndigal li sëñ mun Muntaxa jottali nañu ko waaye sëñ Bamba moo ko yëkkatil boppam euh, sëñ Bamba nag bu yëkkatilee boppam sëñ Muntaxa jóg ni dama koy wuyu nu ñu topp ñëw ne ko dañ lay wuyu yaakaar naa tawféex dana fa yomb yàlla nañ ko sëñ suñu borom defal nan laa amaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom lañu seqal liggéey bii muy daara Hizbut Tarqiyyah ci biir réew mi ak ci bitim réew di sof suñu kàddu rek ci li nga xam ne mooy li jiitu mooy ndigal lii nu bokk te suñu yitte jépp ñu jëmale ko ci ndax xam ne euh, yàlla suñu borom bu la defalee feex gu mel nii dafa mel nii xam li mu la defal mooy tax nga mën koo sant ndax umpale la yàlla defal na tef na tax nga def loo xam ne moo ko weddi ko ñëw yam yàlla nañ ci yàlla suñu borom musal te sëñ Tuubaa ci kàddu boppam lépp lu mu wax aktubu naaxilan la min allawhi wa min qalami wa fi urufi lam amin sëñ Tuubaa lam bindoon di ko wax xasida laqad jaakum mu wax ci ne suñu borom moo ko may jàngu bii nga xamante ne mooy daara ju mag gi nga xamante ne moo fi dañal ak réer moo fiy dañal njàqare moo fiy dañal coono moo fi dañal lépp loo xamante ne mel na ni safaan la woon loolu nag bu tawféex ji ñëwee ci sëñ Mouhamadul Muntaxa kon ñëwaaleel na ak képp koo xam ne jamonoonte ak moom ci la sëñ Atou wax ne nun nañ fas yii ne nañ daan doxee nu wane ci ne nun jublu lañ jublu suñu borom jublu goo xamante ne suñu lépp lañ ko lañ la lañ ko jox illaa mën la woo kulliyati xat tawajjahat mi daal di laa mi waqat kaana li mën naa jublu suñu borom nag boo ko defee sa lépp wuy si lu mel ni dina yomb kon looloo tax sëñ mun Mountakha di faral di wax ne jublu yàlla suñu borom rek ci lañu mën a liggéeyalee Sëriñ Tuubaa kon yitte jooju lay delloosi ndax yitte la joo xamante ne bu ñu xoolee ne dina noppal dina noppal ci njaboot gi ndax réew moo mës a gis mu jiitu rek xam-xam moo ko dimbali mu jiitu koo gis koo gisit mu des ginnaaw doya dal xam-xam moo ko teg kon sëñ Mouhamadou taxaa su waxee fii mu waxee ak doxale nii mu doxale dañuy xam ne ndimbal la lu bàyyi ko ci yàlla dikk di ab cëram mu dinu ko jottale ñu di ci jëriñu kon ziyaara ngi nii boo xamante ne ak direction générale bu Hizbut Tarqiyyah nu mu ko mën a tëralee nañ xam ne dem fekki sëriñ bi rek lay firi buñ koy fekk ji nag dajale sunu alal jëmale ko ci liggéey bii ak wooteem bii kon nañ ko defee ci yu saane woon na fil xayraati ni ko sëñ Lamine Diouf da waxee woon yu saane woon na fil xayraati mooy lan nañ xam ne mag ñi bañ daan joxe addiya gënoon naa jafe dem fekki sëñ Touba ci yéen dañ leen daan tubaab yi dañ daan teg réglementation buy tax dem gi du yomb dinañ teg lépp kayitu lempo yi nga war a fay teg lépp ba noppi nga door a mën a dem ci sëñ Tuubaa teewul daan nañ dem te buñ daan dem it lépp lañ daan faggu di ko yóbbul sëñ Tuubaa kon su fekkente ne tey jii nun coono yooyu teggil nañ ñu ko te ku ne xam na ne lii sëñ ma du mu Mountakha naal bu ñu doxee tuuti képp ku ami diplôme am ko ci arab lisaanu arabia am ay diplôme it ci lisaan beneen làkk boo xamante làkku la làkk mu mën a doon la ci àdduna yëpp dina maase doon lu am njëriñ ci réew mi di dox ndax arab ku ne xam na ne Touba gii ak feneen foo mën a dem ñëpp bëgg nañ seen njaboot jàng alquranul karim jàng xam-xam ba noppit boole ko fu jamono toll ci xam-xam ñu maasale maase tollook ñëpp loolu nag dafa mel ni université bi dafa doon ndimbalal yàlla lu ñu fekk si ci lii kon nag maa ngi sof sama kàddu rek ci kàddu sëñ Atou ñu xam ne joxe sa alal la ci sëñ yu Mbacke mu tedd ma waxoon boo amoon lu néew dana bari boo amee lu bare dina barkeel boo amutoon dara di nga am kon bu kenn aw ma wërsëg mu ñëpp jël leen am lépp nag jox ko sëriñ bi bu ñu natt ne nangam mu sangam mooy sama objectif déedéet lin am lépp lin am lépp nag la ca des mooy suñ bu suñu borom lu mu ñu wërsëgal rek nañ ko jox sëriñ Tuubaa kon defe naa lii daal mooy kàddu yi nga xam ne moom laa ci doon dolli di soññ góor ñi di soññ jigéen ñi la ca des liggéey la boo xamante ne ña ko war a ànd dinañ ko ànd nañ ko war a àndee it ah, xam nañ ko ndax direction générale dafa nos ab liggéeyam noo xam ne daara ju ne xam na ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bisimilah barke borom Touba kon ci kàddu waa daara biir réew mi ak bitim réew ñu gën koo xamee ci coordination des cellules nationales à l'étranger dégg nañ ndigal li nga xamante ne bii jëwriñu daara si ñu Atou Diagne woo nañu ci liggéey bi nga xamante ne bii mi ngi sosoo ci yeeslaat bi nga xamante ne bii mu Mouhamadou Mountakha mi ngi koy yeeslaat liggéey bi sëñ Tuubaa bii nga xamante ne bii moom ci kàddu boppam wax na ne dafa bokk ci naali sëriñ Tuubaa yi kon ñu xam ne dañ ko daan jaar rek démb ak bët ki démb weesuwut ñi nga xamante ne bii noonu la saaba yi andoona yoon saa salaam mag ànd kook sëñ Tuubaa ci liggéey bu mën a jóg mu ndigal kon ñu xam ne liggéey bu axe day daal taxaw liggéey daara taxaw liggéeyu espace taxaw liggéey bi membre taxaw kon loolu mooy tax chaîne bépp duñ bàyyi benn fànn ci wàllu animation kon ñu xam ne diggante axe 1 di Dakar ak Rufisque axe 2 di Thiès Mbour Joal Njagañaaw axe 3 di tuuba ak Mbacké axe 4 di Fatick Kaolack Diourbel Bambey ak 5 di Saint-Louis Louga Kébémer Tivaouane axe 6 di Kolda Ziguinchor ba Tambacounda nañ xam ne liggéey la boo xamante ne bii foofu lañ koy njëkk a tàmbalee doog a wàcc ci daara ju ak espace am biir réew mi ak bitim réew diggante Amérique Europe euh, Asie euh, euh, Afrique daara ju ne ci axe la leen xamee ci wàllu liggéey bu mel nii kon ñu xam ne bu ñu saaba yi gën a gore bu ñu mag ñi gën a gore comme ni ko si Abdoulaye Mbacke waxee woon ci ne diggam ak digg diggante yoon bi ak Serigne Touba ay junni ay at la waaye diggante Serigne Touba ak mag ñi bëgg démboo njaay rek la kon ñu xam ne ndigal li weesuwut suñ dimbal ak suñu tawfeex ndax ku lay woo ci liggéeyal Serigne mu ngi lay dimbal ndax Serigne Touba bu la bëggee dimbal di lay liggéeyloo kon lii Serigne Mountakha dinu wooloo ndimbal su suñu dimbal tey ëllëg kon bu buñ desee dara bu dee waa tubaa nag ñu xam ne tawfeex ji mooy Touba la amee waaye waa Touba mooy ko yàgg Serigne Touba ak foo mën a ne kon day mel ndigal yi du bàyyi kenn du bàyyi fenn kon daal lii nga xamante ni daal moo daloon saabee ca Badar nga xam ne kenn ku ne fa xare bi gën a méttee fa nga gën a jëm mooy nañ xam ne liggéey bi it mooy loolu kenn ku ci ne na seet sa diggante ak Serigne Touba natt sa bopp ci li nga xamante ni bii moom la Serigne Touba jaral nga dem ci ba jeex takk te xam ne mooy seen ndimbal te jàpp ne euh, ëllëg ni nga Serigne Touba euh, Serigne Mountakha waxee ne liggéey la boo xam ne day dekk bis penc nga xam ne dara ëpp solo ci yow nga jël sa alal def ko ci loo xamante ni bii bis penc bis boo jàkkaarloog seen tuwaa xam ne yow la nga jaayante woon sa alal ak sa deret def nga ko ba mu jeex tàkk kon ñoo ngi woo membre yi ci kaddu jëw suñu jëw si aatu daar yi dañ xam ne ni nu ko tëralee incha allahu taala noonu lañ ko fas yéene toppee daara par daara membre par membre espace par espace kenn bañ a des kenn ku ci ne ñu fexe ba ndigal li nga doon ci dara ci barkeb Sëriñ Tuubaa kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di santaat Serigne Touba bu baax a baax ci fekk gi ñu fekkee waat naanub Serigne Touba ñu mën ko war cee dem ba takk jërëjëf. bisimilah barke borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi jël suñu nuyoo di ko dolli rek ci nuyoo yi suñu kilifa yi nga xam ni ñoom ngeen déggoon léegi ñuy woote ci liggéey bu màgg bu rëy bu tedd bi nga xam ni moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké woote. nii ko jëwriñ daar ji wootee di sëñ Atou Diagne xam nañu ni liggéey bi euh, ndam rek moo cay mujj ngir sëriñ bi nga xam ne moo woote nim mu ko wootee noonu la ko ñaane suñu borom waaye itam day nuroo rek la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar wa qaatalu man qad naa humu shafi'u shufaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy xare ji Badar nañ fa faat ñëpp ca yéefar ya ca noonu ya fekkoon na mu tàgg leen bu yàgg jiit ñu dem xare ba kon ma ngay ñaan waaye xamoon na ne ndam lay am Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké nag liggéey bu tedd bu rëy bi nga xam ne moom la woote liggéey la boo xam ne sangam bu tedd ba Cheikhul Khadim moo ko fi bàyyi woon joxe ndigal ginnaaw bokk suñu borom mayee ni sëñ bi waxee woon ci jumaa ji mag ji ni banaaliyal baaqi binaan baaqiya bi xayri hadimin lil jinaani raaqiya banaa boobu fi'lu maadi la jëfandikoo suñu borom tabaxal na ba noppi jumaa la la doon junj bi itam lu mel la waxe bil Mustafa li banaa quddus madrasatan biha yazulul aza wal jahlu wal kabadu ci daraje yonente bi sallallahu la ko suñu borom tabaxale jàngu boo xam ne ci la fi tooñ di bàyyi ko ci la fi riir di bàyyi ko ci la fi njàqare di bàyyi ko kon mooy fa ñu jëm liggéey bu rëy boobu la Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké woote di loo xam ne suñu borom da ko may sëriñ bi ba noppi liggéey boobu nag ñu war cee sant suñu borom bu baax ngir bu liggéey ba yeggee ñañ cay tàggat ñu cay génn ñooñ ñooy xam tey dund li suñu borom wax ni wabu wabtaxi fii ma ataka allahu daaral axira wala tansa nasibaka min addunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabghi alfasada fi l ard inna allaha la yuhibu almufsidin ku fa génne ku nekk di nga xam li suñu borom wax ni lépp lu borom teg ci loxo lépp lu la jox na nga ca fàggu waaye bul fàtte sa cër ci àdduna nanga nga rafetal kem ni suñu borom rafetale ci yow waaye itam bul jublu mukk ak yàq ndax suñu borom bëggul ko yàq kon ñu mel noonu ñu war a dund lool war ko jëfe moo la barab bu am solo boobu di tàggat ci biir loolu nag lu ni mel képp ku suñu borom defal tawféex ba nga doon ca dara war nga sant suñu borom ndax ab liggéey la boo xam ni njariñam du dakk ku ci jàpp waxtu boo fi bàyyee ko fii jëm liggéey ba mi ngi fi ay nit yi ci jariñu say yiw di yokk di dolli ko loolu dëppoo naag li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis ni ida maata al insaanu inqataa amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jaariya wa ilmin yuntafau bi wa waladin saalihin yadoo la képp koo xam ne mi ngi dund bis bu faatoo ay jëfam yëpp day dagg ba des joxe alalam ci yoon yàlla lu mel ni sarax boo xam ne day wéy mooy nga bàyyi fi loo xam ne ay nit dañ koy jariñoo sa ginnaaw xam boo xam ne ay nit dañ ciy jariñoo ba tudd ci bàyyi fi sa njaboot ñu doon ñu baax di la ñaanal kon liggéey bi def sa alal ci yoon yàlla mi ngi ci rawatina nag bu dee addiyee sëriñ tubaa sarax bari na ngëneel lool waaye nun murit xam nañu ni addiyee moo ëpp doole ci ñun ëpp ngëneel waaye itam xam bi nga xam ni day defar aw askan di defar aw xeet te moo mën a tabax àdduna ci la ñu woo te xam-xam boobu sëriñ bi mi wax ci biir naju qadaa il xaaj wa ahlal ilmi wal aadaabi bil fawzi bi sawaabi wa sawaabi ni suñu borom moo jagleel ñooñ xam-xam ak ñooñ teggin ci ñu mën a texe ci def lu jub ak ab yool am ci ab yool kon barab bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké di woote ñami tàggat mooy ñoo xam ni buñ fa jógee doon boroomi xam-xam yu ami teggin yoo xam ne ñoo mën a def lu jub def lu jub nag boo jaamu yàlla di dund diine di def lu jub waaye itam beneen fonction boo mën a yor di ci def lu jub boo doon président di ci def lu jub boo nekkee attekat di ci def lu jub ba ci boo doon ab maçon wala menuisier di ci def lu jub te la nga cay jub moom la nga def mu mel ni da nga cey jëlee njëriñu àdduna da ngay wëlbatiku am ci ab yool kon muy ay ngëneel yoo xam ni euh, kenn xamul fu mu yem ñu war a sant suñu borom bu baax a baax ci bi ñu ko jagleelee ñu xam ne njariñ la loo xam ni euh, kenn xamut fu njëriñ li yem sëriñ bi nag lim ci jublu wax na ko mooy yëkkati kalimatullahi al-ulya yëkkati kàddu suñu borom yëkkati nag ci lu mel nii xam nañu day mel ni rek taal bu yàlla taal faw mu takk jëppét waaye nag sànni ci sag mat ngir doonte dara loolu itam moo dëppoog la yonent defoon rek ba muy dem xare Badar la leen taxoon a jóg weesuwut yàlla la kilimati man ala biil himama yëkkati kàddu suñu borom rek moo leen yëkkati woon waaye nag ñoo xam ne jamono boobu jaasi fit xeej moo nekkoon ko ngànnaay yi ñu doon dooleele lislaam fi ñu toll nag xam-xam bii mu woote nga xam ni la koy laytaay ci jaasi ak fitt ya fii ñu toll mooy joxe ci suñu alal ngir tabax barab bi buñ noppee borom xam-xam yi joxe ci seen xam-xam buñ noppee borom njaboot yépp sóob ci seen njaboot ngir fa sëñ bëgg ñu egg fa ñu egg fa ak jàmm yàlla na ci borom dimbali te yàgg fa Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké loolu itam ànd ak wér wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëriñ Alioune Guèye kon nag ndigal langoog ñoo ko déggandoo képp kuy membre daara bu Tarqiyyah ak foo mën a nekk dégg nañu kàddu yi suñu aatu yëkkati mu jëm ci soññe bi ak fàttali ndigal li ñu xam ne nag Sëriñ Tuubaa moom wax na ni lépp lu mu wax rek ba mu ko bëggee la ko suñu borom defee na ko soobee kon nag léppam sotti na ñun ñi nga xam ne nag ñoo am tawféex yi di ci yëngu xam ne bëgguñoo dimbali rek moo tax saaba yi tudd nañ leen fi waaye sëñ Abdou Lahad waxoon na ni ñoom dañ leen laaj bakkan yi ak alal yi ñun nag suñuy jaayante jëm suñu giiru dund kon nag lenn lu ñu moom amul suñu lépp Sëriñ Tuubaa moom gannaaw nag mësta santaane lu jëm ëllëg bépp liggéey boo xam ne mës na fee jaar ci yoonu murit ñu di ko fàttaliku muy raay bi di jumaa ji di carrière yi ak mboolem liggéey yi nga xam ni yëpp jiitu na fi nii rek la ku daw jëm ci li nga xamante ni mooy ngërëm li dajeeg lépp loo xamante ni moom mooy sàkku kon nag ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu ci tawféex ci barkeb Sëriñ Tuubaa na mu waxee woon ne suñu borom defal na ma tawféex ci liggéey bii may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam raafaxtu fi xidmati tawfiixa xaalixina di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu Serigne Touba mu matale ko te ñu ànd ko ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu